jàpp nañu ne fii ak Mbàkke ak ak Touba nii tata yi di doxe doxee euh, tarif yi ñuy wax ñoom dinañ si ñëw si kanam tarif yooyu euh, élèves yi nga xam ne amoon nañ seen représentant gis nañu ne effectivement loolu lu jaadu la pour euh, mbake Touba yi également gis nañu ne loolu aussi ñu teg lu jaadu la donc jàpp nañu ne war nañu mën a dem si ubbite école boo xam ne bon dina arranger ñëpp waaw li si des nag mooy comme dañoo nekk ci contexte feebar euh, li nga xam ne euh, war na jàppandi ak euh, contexte feebar boobu il faut que également ñu dugal ko ci biir maanaam léegi jàpp nañu ne buuxante bi dootuñu ko seetaan xale yi di ko def bu ñu waree dugg si oto yi ndax organiser nañ ko ba nga xam ne ku nekk dinañ la xàmmee boo nekkee élève te bu ñuy dugg dinañ fexe baran bu oto bi feesee ñu xaar keneen euh, beneen oto ñu taxaw ñaareel bi dinañ fexe ba gel di fa nekk ñuy ñuy raxas seen seeni loxo euh, ñetteel bi ku solul masque doo dugg déjà ku solul masque sax waxuma doo dugg waaye même fa nga nekk foofu dinañ la obligé nga dem sol masque parce que le port de masque est, est obligatoire dinañ fexe également ba euh, rotation yi maanaam bu ñu duggee oto bi war a dem am na heure yoo xam ne moom la ñuy jël heure wàcc moom la ne oto yi di jëlaat yóbbu leen keneen koo xam ne nag loolu arrangé wu la ah di nga dem euh, nga xool nag ngay débrouiller si yeneen oto mais ñun si wàllu administration ak euh, transporteurs yi ak syndicats yi nga xam ne ñoom ñëpp ñëwoon nañu dinañ fexe ba def ba nga xam ne loolu dina nekk ay mesures yu ñuy appliquer ba mu yombal euh, vraiment xale yi ni ñu war a demee si ñaari weer yi seen seen terminer seen année scolaire dem def seen examen ba nga xam ne day mel ne Euh, nekk ñu woon si ay jafe-jafe. Mm, préfet eh, ñun am tey ji may nañ ko loo xam ne nii eh, eh, li tax ñu may ko ko nag mooy boo nekkee sa kilifa mu am loo xam ne ni kilifaam da ko ko sant nuyit la cay sunu wàll da mooy nu may ko li nga xam ne moom la bëgg mais nag ku ne xam ne ne cent franc bi ñu waxoon fii mooy cent franc bi booba oto yi dañ ko yeb ba mu fees moo taxoon ñu man cent franc mais bi nga xamee si ni lii xew na nag kenn ku ne ñu ne la dugal ci sa loxo ñun woo nañ transporteur yëpp ne leen eh, na ngeen indi oto yi dawal ko donte amu leen ci dara it li nga xam ne moom la état bi bëgg eh, mbaski mi jóge fi ngeen def ko te def nañ ko ba tey eh, noo ngi d'accord ci ànd ak préfet ci li mu bëgg loo xam ne nii nombre ban daan yëpp ban rangé la ne yëpp maanaam nit ñi dañuy toog élèves yi toog élève bu ne yor sa ñaar fukk ñëw jàng si bu ek bu tëjeet bu ñu wàcceet ñu duggaat fay ñaar fukk loolu ku ne xam na ne ku koy def ci vingt cinq vingt cinq vingt sept vingt sept places eh, participation la eh, ku nuy sant bu baax eh, sunu président ci compréhension bi mu am ndax tey jii kilifaam ñaan na ko mu may ko loolu nag noo ngi sant idika ndax bu bañoon it kilifaam ñaan na ko nanguwut tey nag kilifaam ñaan na ko mu may ko loolu kon préfet yow it noo ngi lay sant bu baax di la gërëm di wax it nag mm, loolu ñu mooy transport élève bi niñ ko waxee mooy élèves yi nañ xam ne transport élève la ñu wax élève bu ci bàyyi ba heure bi nga xam ne heure yu yi jàll na boo duggee ci tata yi boo waree saw carte da ngay fay paas dafa am heure boo xam ne lu leer la ñu wax transport élève mooy kon élèves yi 9 heures la ñuy dugg kon bu ñu xëyee ba 9 heures ak heure wàcc waaw ak ak 16 heures bu ñuy wàcc ñaari heure yooyu mooy heure élève ku passé loolu nag boo yoree sa ñaar fukki boo duggee tarif normal ngay fay parce que tarif bi fépp foo xam ne yaa ngi yem boo jógee fii Mbàkke boo yemee ci corniche bi cent franc la boo demee jumaa ji cent cinquante boo ko jàllee deux cent ko defee loolu la ñuy xam ne élèves yi moom euh, noonu faw noonu tey jii jàpp nañ ci ngir suñu kilifa jàpp nañ ci ngir appel askan wi ci sunu ndigalu président ak préfet noo ngi sant bu baax wax dëgg yàlla ci sa taxawaay ndax euh, tey jii autorité yëpp bu ñu lay def ni yow euh, réew mi jàmm dina ci am. dañuy commencé di nuyu euh, ki nga xam ne moom moo fi toogal état muy monsieur le préfet gis na nañ aussi sens de responsabilité bi mu am ak sensu engagement bu bu bu mu am aussi si biir département bi Abdoul Ahad Lo coordonnateur des élèves du département de Mbacké mais aussi mënuñoo bañ a ñàkk nuyu suñu waajur yi nga xam ne ñoom ay conducteur lañ tamit ñoom ay parents d'élèves lañ ndax ñoom ñëpp kenn ku ne am na ay doom yoo xam ne da ngay jàng tey jii euh, problème bi nga xam ne moom moo gën a posé fii si diggante Touba Mbacké moom mooy problème mu transport euh, élèves tey du ñu demee ba nga xam ne préfet ak sensu responsabilité bi nga xam ne am na ko sansu engagement bi ak détermination bi yëpp mu dajalee masse yu nga xam ne ñoom ñoo ëmb lépp muy syndicat yi élèves yi ak euh, principaux yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di transporteurs yi nga xam ne ñoo yor wàllu transport si diggante Touba ak Mbacké pour ñu toog waxtaan si li nga xam ne moom mooy transport Mbacké ba xam ne ay solution yoo xam ne dafa nekk ay solution yoo xam ne solution yu adéquate la si ñun ñëpp képp koo xam ne jii da ngay jógee diggante Touba ak Mbacké doon jooy affaire transport gëm naa ne euh, dootoo ko jooy parce que li nga xam ne moom moo doon train de vie bu mu doon def moom la ñu continué waat ba tey muy lan wàññiwaat affaire yi na mu meloon cela veut dire que tout simplement mooy lan mooy ñu jéem a yokkaat li nga xam ne moo di sensibilisation bi jéem a sensibiliser conscientiser aussi élèves yi ba nga xam ne di dinañ respecter ndogal yi nga xam ne jël nañ ko si wàllu transport yi maanaam muy heure bi nga xam ne heure bi la ñu fixé muy heure départ ak heure retour muy à partir de sept heures sept euh, ba nga li nga xam ne moom moo di euh, à partir de sept heures sept ba li ba huit heures euh, trente élèves yëpp ñëw parce que élève boo xam ne tamit yaa ngi toog ba dépassé heure boobu ah man débrouiller waaye li nga xam ne moom lan teg réglement yi da nga ko violé ñuy def tamit port de euh, port ak ñu sol suñu uniforme parce que élève d' mooy lan uniforme la ñuy xàmmee parce que conducteur yi mënuñoo xàmmee élève ak lu nekkul élève waaye nag na nañoo xàmmee si kaw ñu sol uniforme donc may ñaan sama mbokki élèves yëpp ñoom ñëpp ñu sol seen uniforme kenn ku ne école ba nga ne nga sol sa uniforme parce que uniforme bi tey moo nekk suñu carte d'identité uniforme bi tey moo ñu yombalal li nga xam ne moom moo di suñu voyage diggante Mbàkke ak Touba léegi nag fépp foo xam ne daan na fa taxaw incha allahu euh, suñu papa yi dinañ ànd ak euh, ñun jàpp lañ si loolu ba nga xam ne foofu fépp oto dina fa taxaw kenn ku ne di nga mën a jàngi eh, dem ñëw